Euh, dëbb daaxe boobu noonu coller le morceau comme comme ni ko waxee est-ce que tey jii nekkul lu ñu yóbbee ci lu ñu nekk parce que tamit tey jii nii euh, yow euh, yaa jiite Motap da ngay am espoir indi fii ne y a un changement de système système bi dañ ko fiy bale indiwaat un système mais ci campagne yii nii ñu nekk nii dañu gis lu bees Manam, ñi nga xamante ne ñu bëri jàppoon nañ ne seen loxo setul

su boobaa booy wax li man ak yow ah mais mais mais mais situation non non non àggaguñu foofu. dama ne la Pastef Ousmane Sonko ci boppam bu jàddoon woon yoon wi ñu won ko parce que doo yee ba pare di nelawal. dëgg man Fall damay té kuma ko wax tam dama koy nang parce que nit la damay jëm dong ci ñi ñak solo la bok waaye gëmuma kenn ko xamni da nga mat ci biir réew mi gëmmu ko dañuy ànd dimbalante projet bobu lañu ñu am jéem yooyu la ñuy -hmm. ki ñëw fekk ci ñu ci walu politique dañu fekk si ci walu politique bu ko nexé do politique mukk nit ñëw ne la dama lay jappalé nga ne ko dooma jàppale mas nga gis kuy def lool ah, ennemi loolu defal nag ci lan la lay jappalé ci voter la ci gagner la mu dess yenen ñaari tomb benn bi mooy gouverner ku loxom setul du bok ci liñuy def ku loxom setul du ci bok ce n'est pas notre principe ñaarel bi est-ce que ki ànd gi mu ànd ak nun tax lu ko di top wala fu mu jaar ak réew mi ñu bàyyi ko mu dox mu daagu loolu bu amoon tey tey tey balaa ngoon nga dégg ma te bu boobaa man damay xeex parce que loolu dong lan doon xeex dégg nga léegi nag suñ dee jàng histoire ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royukaay yàlla baax na ba suñu leader wax ni yonent bi mooy modèle mooy royukaayam ci politique ku ne sañ na ko su waji demé sañé dem jangé Montesquieu ni moy sama kay ki dem jangé Jean-Jacques Rousseau ni moy sama roy kay waxal wax ni politiciens yi fi nekk non nga xamante heure bu waxee tudd Montesquieu famanta bu ñu nañ nañ def ndànk-ndànk rek nañ def ndànk-ndànk rek xam naa gis nga man xoolal gis nga man gis nga man xoolal man gis nga man gis nga man pur et dur kenn du jaar sama kaw jàll dégg nga borom Montesquieu non non dama ni la ku mu neex mm. nga dem seeti sa modèle ci politique mm-hmm. ñi fi nekkoon gis nañ fi ñoo xam ne Karl Marx mooy seen sëriñ gis fi ñoo xam ne Trotsky mooy seen sëriñ kii ko mm-hmm. xam ne Lénine mooy sëriñam kii euh, nu mu tuddati Montesquieu mooy sëriñam kii Cheikh Yérim Seck ngay waxal ku non <laughs> man waxuma kenn cest à dama wax ni suñu sañee dafa am développement bu ma doon def dama ni ñooñu buñ sañee jël loolu ñun sañ nañu jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam

déclaration de droits de l'homme et de citoyenneté yi ñi ciow yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mën naa la defal démonstration scientifique historique bo xam dara du ko dindi dégg nga léegi nag yonent boobu sallallahu alayhi wasallam nan la defoon bi mu gañee yonent bi dafa def fatxu Makka amoon ay criminels de guerre amoon ay nit ñoo xam ne dañoo xeex ak moom ndax ñàkk xam am ñoo xam ne dañ leen masse bi da leen a yóbbaale ñu xeex ak moom nit ñi bokkuñu am na ñoo xam ne noonu nañu Pastef parce que comprendre ñu woon li Pastef li tax Pastef di jóg am na ñoo xam ni médias yi ñu jëfandikoo ñoo leen nit ñi kat ay rebelle lañu ay criminel lañu ay lii lañu yooyu lañ daan wax ba ñoom ñu gëm loolu mais bi ñu ñëwee ba jël pouvoir bi doxal lu bokkut ak lañu lañu doon waxal màggaliwuñu defuñu jaloore ba sëñ Muntaxa lu ñu waxoon ñii bu ñëwee màggal dootul am loolu lañ wax demuñu Tiwaawan ah? ban ban ban yaree di ban ñàkk ma ban ñàkk wekk

di taf yëngal di continuer di taf yëngal. yaakaaroon ne defar bi dafa yeex. non yeexul. Ah, en tout bi ngeen. non yeexul courant bi ak yëpp dafa. si dëkk bi xam nga xam nga xam nga sénégalais li tax toujours ñuy poser question yooyu sénégalais mboolu moo ko gënal sàq am sàq am mbool moo ko gënal am sàq. Euh, damaa bëgg ñuy làkk wolof léegi sëñ Diop moom dégg na wolof yow mi yaa déggul wolof. sëñ Diop mooy borom waxi mag. moom dégg na wolof moom parce que man déglu naa ko wolof set la xam nga mboolu mooy lan. mboolu mooy bu ñu bayee dugub ji muy tàmbalee ñor ñu ci dagg ay gub yu tooy ràbb ak mboolaan mboolaan lu mel ni mbaqu lasper lay doon lu xaw xaw ko ëpp tuuti buñ ko ràbbee teg tàngal gub yi teg ko ci dugub ji sotti ko mboolaan mbool moomu dafa neex ko mboq mu tooy te moo ko xaw a dàq sax loolu mooy mbooloo loolu mooy li ñuy tuddee euh, livrable livrable ci bépp projet mooy li nga jot a tàmbale euh, li nga tàmbalee ñam loolu taxul woon baykat bi di bay ah. dañ koo ñamal xale yi yàkkamti waaye li taxoon baykat bi di bay mooy suñu góobee dugub ji ba dugal ko ca sàq ma moom bi mi muy bay moom dundam lay xalaat dégg nga donc y a deux choses ki nga xam ni moom dafa bëgg lu ñam ca saasa ak ki nga xam ni moom dafa bëgg lu dëgër loo xam ne day assurer tey ak ëllëg parce que sàq xam nga lu ca nekk lu ñu dunde ci at mi ak lu ñu jéewaat déwén pour dundewaat ko continuer di ko dunde ay centaine d'années mooy ab dund aku jiw sénégalais nag mënuñoo xalaté non ñom dañoo bëgg toujours boy politique nga am dara ci politique ba man mi suñu mané wa waa diw ministre la ñangi xol bu may genn ban auto lay war lan lay sol nan lay mel parce que nit ñi dañuy yakamti té réew mëno ko défar ci yakamti comme tol mëno ko bay ji dugub gi léegi ni ko da ngay ñor légui légui ma lek la déedéet il faut du temps temps boobu du du grâce politique du lu ñuy wut du lu ñuy wax euh, accordé euh, baal déedéet ñun soxlawuñ loolu ñun dañoo soxar ci suñu bopp dañuy évaluer suñu bopp yërëmuñu suñu bopp ci li ma bëgg a wax yërëmuñu suñu bopp mooy euh, kii ñu suñ bopp baaluñu kii ñu nanguwuñu ragaluñu critiquer suñ bopp ndax ragaluñ tam ñu critiquer ñu ragaluñ loolu mais qu'on nous ñom avons ñi di wax ay diw ay avons ay ay nañu dugg système bi li ñu proposé ni mom lañuy ñuy Sénégal ñu jël ay techniciens jàng ko ni li faay la mhm. ñu génn jox ko Sénégalais yi c'est ça une opposition Ousmane Sonko don na ak Macky Sall daan nga dégg muy wax Macky Sall li Macky Sall nangam mi Macky Sall nga ko dégg mais Ousmane Sonko lan motax mu siiw lan motax nit ñi xam ko moy ni Sénégal contrat yi fi ci mom lañ déggee Arsenal métal ak ay ay ay ki ñu mu tudd gaañu tur tour yi ki yoy ñun ñu bari xamuñu ko woon. Mhm. mu génné ab livre. surtout affaire offshore yeeg. offshore ak yoy yëpp. hein daadi ni contrat bi li la. lii baaxut li Sénégal amu ci njariñ li tubaab yi ñoo ci bénéficier wu lii magouille la lii corruption la loolu la doon wax. Mhm. loolu la proposé Sénégalais yi jaay leen ko te ba mu leen la kutul place de la nation mhm. les journalistes les communicateurs hommes politiques, politiques les intellectuels, ni leen pour le Sénégal loolu moy man sama gis-gis moy jaar opposition tey bu ko buggaan man damay saluer bu ko ci ñooñu saluer am curiosité dégg parce que bëgg que xam li gëm ba mu jaral je ma bañ a continuer ci njuumte nañ ñu wax loolu ngir yàlla def nañu diagnostic fii la Sénégal toll def nañu jano def nañu proposition fii la ñuy def premier mandat bi ba ci deuxième mandat bi def nañu vision fii la ñuy dem ba 2050 su fekkee loolu c'est pas ba deux vision boobu noonu. Hmm. Euh, vingt cinq ans avant vision bi bëggoon naa poser. Eh, xëy na xaw na koo romb. ci euh, wàllu transhumance. yaquluuna bi alsinatihim lay laysa fi xulubihim dañu gis koo xam ne moom la ñuy wax Masamba Njaay ñu fal ko parce que gépp ànd ne d'accorduñ ci pal gi ndax moo ñu daan saaga moo daan def man bokk dagg ay vidéo am dugal man bokk naa ñu gis léegi ci vidéo bi Galaw Ba hmm. te ku ne xam na ne dafa ànd ak Macky Sall pendant ay ay ay kiyam ba actuellement fi ma toog nii ki ma jox information wu dëgg bawol bi rek liñ ci amagun ci ay maire léegi mu jege 15 yo xam ni ci yenen parti lañ ñew ñew lañ est-ce que lolu dëgg la wax nga ci sa biir wax ne lolu lañ wara doxé ndax ànd ak yow ci nga gañe mais ki ki ànd ak yow nga gañe imam est-ce que lu day xaar bo paree it séddu ko. mais ñaari bokkul nag sëñ bi. xaaral dama ñaari nga wax ñaari exemple yi nga lëkkale dama yegg man koy bo paree répondre parce que mm. damay wax fi dembu ne. Mm. bari nañu ànd ak Ousmane Sonko tay d' accord mosuñoo d' accord idéologie dañoo xam ne bu ñu àndul ak moom duñ dégg honorable moo tax ñu ñëw ce loolu tamit du doon pièce ci biir wax ji nga xam parti bi nga xam ne kuñ yëkkati ñu ne noo gis nañ maam booy jaaw récemment président ci bopp premier ministre moo ko indi ci kaw ci kaw ci kaw podium bi yëkkati loxoom ànd ak moom ñii di yuuxu sax ci yenn waa Pastef yi di ko wuu ba am ku naan noonu tàccu leen ko parce que xam nañ ne fee lañ bokkoon ñëwaat est-ce que liñ bañal Massamba Ndiaye du moom lañ nangul Gallo Ba nangul ko Mame Boye Diao war koo nangul keneen ak keneen. question bi claire na mais ñaar yi nga boole moo bokkul Samba Ndiaye du ralli def deful ralliement politique wala transhumance gaa ñi di kaas dañ ko nommé ñu jàpp ni koo xam ni man sama jàpp-jàpp te def naa ay émission wax ko koo xam ni. man nga dugg ci complot boo xam ne justice su Sénégal moo ni lii du dëgg Ousmane Sonko encore une fois parce que seetalu ko justice moo taxaw ni liñ koy jëñ ci Adji Sarr yëpp du dëgg ñun ñëpp Sénégal yëpp te biñ ko koy wax booba justice bi nekkul sax ci loxoom bu doon tay lañ ko def dañ naan dañ leen manipuler booba justice mi ngi nekk ci loxoy adversaire am bu fekkee mën nañoo waxee noonu ci juge yoo xam ne ñenn ñi sax manifester nañu bind ni ànduñoo moom contre nañu Ousmane Sonko ñooñu ñoo taxaw ni lii ñu koy tuum pour dellu siwaat ci question boobu koo xam ni nii nag xuloowoo ak yow senegal justice nga nga xulool nga duggoon ci complot kon bu fekkee lañ ko di jiñ du dëgg kon affaire bi complot la loolu rek lañ firi nga dugg ci complot politik bu attana waxuma par rapport à Ousmane Sonko mais bu par rapport à kaneen itam man am la même position par rapport à Ousmane Sonko mais comment nous complot politique pour détruire un adversaire politique ci un mensonge hein? ànd ci ben ben ben énergie bi ben man ku pour ñu la suñu ay mbir yo day doxal suñu mais pourquoi ngeen accepté mu président non foofu laa wax ni ñaar da ngeen koy jaawale dugg ci benn coalition politique ni damay jàppale diw ak dugg ci gouvernement bokkul damay jàppale diw épreuve la ñu ngi lay seet duggal. mais imam état boo ci xasee bu du état bu leen jaawale état ak parti bokkul de Pastef du état Pastef parti la Ousmane Sonko mee nga gis yee mu yor sunu xaalis la ñun waa Pastef ñoo ko dajale ci arena ba jox ko ko ne ko demal campagne ya ngi dégg mayma ma rek bokkul pastef li tax nak sénégal yi mënuñu ko teqatle xam moy imam bo ne mayma ma c'est yow dañ lay bay nga wax li nga bëgg a wax ah, léegi yow il faut nga may ñu ñu léegi manam ci bir ci bir say explication parce que imam programme am la indi léegi programme am la ñu bëgg imposer fop lolu ño bañ manam problème bi moy <laughs> ci bir ci bir kii xamoo nga dama ko wurus ndax ndax ndax ndax eh, ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax yéen a ma laaj. ni ngeen ni leen neexee ngeen di laajee. waaw man ni ma neexee laaj. mais mais mais Imaam nekkatoo tontu ci leen neex parce que actuellement ministre nga. non. Euh, ministre conseil aussi man ki ma doon. te gën te gën a rëy ci li ma doon. te duma ko weccoog dara ci àddina. mooy sëriñ daara laa. sëriñ daara. sëriñ daara laa. waaw. moom laay assumer te ci laa bëgg a fas yéene dee ci laa bëgg politique bi léegi may ma euh, ministre conseil ministre conseil yi responsabilité bu may assumer la ci kanamu président de la république ci domaine yi nga ko mën conseil man ko cooy indil sama expérience sama xalaat loolu je l'assume et je le fais ba ca des mooy homme politique la parce que dama jité un mouvement politique qui s'appelle MONAP di xéxal doomu daara yi doomu daara yi dañoo am seen discours am lu ñu gëm ci politique am lu ñuy mooy dañoo bëgg Ousmane Sonko mi jaay nit ñi dëgg bañ jàpp ni ku dëggu la ñun ci suñ bopp ñu taxaw ci wetam di ko surveiller ci dëgg ga bu ko wàccee ñoo koy njëkk wax waaye tamitam bu nekkee ci dëgg tam ñoo koy njëkk defendre ni mi ngi ci dëgg te duñ ci dara bu laneen amee tam dañuy taxaw wax dama laa andil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni la ki rayoon bàyyi tëxam Hamza yow jàng diine parce que danaa xóotal sam xel taxawal manam manam problème bi moy lepp delouay bi day dàkkaat ci ndoxalinu yonti waay saas parce que ñom neen yonti moy sen euh, référence mais mais man deug la sa saluer li ngay def li ngeen def yeen parce que man bima ma gisee Modab ak ñi ci bokku ñu ne ya ko jité dama ni alhamdoulillah parce que nit ci daara yi yag nañu xeex ci politique ci réew mi mais daawuñu leen déglu askan wi daawuñu leen bàyyi xel te il sont sëriñ daara yi nga gis xam-xam bi ñu am ci doxalinu réew ak commence nan lay doxee surtout wàllu social ak nangam parce que tey un ministre bu sol mbaxanaam ñëw toog imam yi bu doxoon ci mbedd mi doo xam ne ministre attendre ñun niñ doon jàngatee ministre bokk waaw mais tey bu doxoon nii da nga koy jàpp ne sànq euh, da nga loolu mooy li ma doon wax ci ñoom parce que ñee ay tubaab lañu dañoo jàngaloon benn élite xaw a kii tuuti parce que man man su ma dee sol yére duma ko teg ci lii laa wala lële laa. Ah, xam nga fu ma koy teg. Ah, ministre day sol costume yére bi de pour lan loolu yow loolu fan nga ko dégg fan nga fan nga. jàngee euh, loolu lañ baaxoo gis imaam man dëkku man nekkuma ci aada soxna si. Mm-hmm. man ci dëgg laa nekk xoolal mm-hmm. dama ni su ma neexee sol costume. waaw ah, donc mbubb la comme ñëpp mais su ma ko dee sol. Mm-hmm. du ko sol parce ministre day sol costume. costume dégg nga lay sol ay costume 200000. xaw ma man lu may sol costume bu may sol lu muy jar bu ma ko dee sol kañ laa ko sol waaye damaa bëgg a wax ni ñun doomu daara. Mhm. dafa am révolution bu ñuy def dans la révolution. Pastef révolution la. mooy jub jubal jubbanti. lañ bëgg a indi mais jub jubal jubbanti boobu ñi ko am yéene.

on on on politise pas la religion loolu la ma wax toujours. mais pour wax la parce que question kii sëriñ bi euh, Modab dafa am réalité bu mu fi Moi, mooy sëriñu dara naka jekk bok nañ ci politique réew mi mais dañ ci daan bok de de façon individuelle sëñ Cheikh Tidiane si amoon na fi parti politique sëriñ Mamoun Niass amoon na fi parti politique. sëriñ Modou Kara sëriñ mustapha Sy Moustapha ñoom ñëpp ñu ngi ci ñi ngi ñu ngi agir ci politique bi te ay sëriñ lañu. ay nitu da diina lañu mais dama wax ni ab mouvement bu ñu créé mu dajale doomu daara yi ab tariixa moomu ko aw waaso moomu ko aw xeet moomu ko daayira moomu ko donc mouvement la boo xam ni lan boole ñun daara la te daara moo gën a yaatu tariixa parce que daaraa ngi ci kër diine yëpp tiijaan ak murit ak xaadim ñëpp a ci alxuraan donc nga dajale mouvement boobu ba pare dugg ci politique duggin woo xam ni nekkuloo kuy seetaan nekkuloo kuy langaamu de kuy tatchu ñun moo tatchu ñu Pastef man maa ngi ci bureau politique Pastef dañuy def di dindi comme ñep maa ngi ci directoire campagne bi yore mobilisation sociale am fait responsabilité comme ñëpp. te bis bu maa de directoire dañuy dugg ci législative pour dire pour la ci wax rek moy doomu daara xalal nañ leen yoon woo lañ ca jublu mooy tëggaat Sénégal gi nga xam ne Sénégal yëpp dañ cay daje. parce que Sénégalu démb gi fi ñoom Senghor amoon benn élite francophone la ñu créé woon ni leen yéen a moom réew mi ña ca des ñu teg leen fële ni leen féetewoo leen ñaan ak sang néew noonu. danañ continuer di ñaan ak tuddi doom ak sant néew ak maye seen danañ continuer di ko def waaye danañ dem assemblée bi ci yàlla àndee <laughs> jërëjëf nan nga gisee ay yaakaar nga ni ngeen am majorité à a baax ah. bu baax a baax. yaakaar naa ni yaakaar naa ni sax résultat wu élection bu bu mës a am moo fi am. ci yan daas pourquoi ñu def affiche su mën naa may ko mu teg foofu loxoom ma ma ma ma ànd ak. da ngay xool ñaari mbër yi wala mbër yi bëri da ngay xool seeni seeni ñoom ci seen bopp seeni seeni seeni argument ñun suñuy argument bu dee ci wàllu xam-xam dañoo def la Yuusuf defoon Yuusuf alayhi salaam. dafa fekk dëkk bu sëngéem am problème buur ba gént jafe-jafe ya ñu woo yuusuf yuusuf firil leen gént gi tegal leen plan de redressement suñu suñu suñu origine suñu suñu suñu référentiel bii ñu teg c'est un plan de redressement de ce pays yuusuf teg loolu ni leen qaala tazrauna سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون تك أبلان دفلين لي ستان يجكي ستان يكي توب جين دفني دفلين لي دفلين لي بملين وخي بلان بي بباري لم تتك موي إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم من عندي بلان بي ماكو من إجكيتي فالما جوخ مو بوفار ما إجكيتي بلان بي ñun passef lolou lañ

ci réew mi te buñ ko it mi ngi ni fang kenn mënu koo eh, dindi réew mi at ci gannaaw waxuma fukki at de benn at ci gannaaw mm-hmm. opposition bi lañ daan tontoxal di leen song te parti au pouvoir ñoo leen daan song mm-hmm. loolu moo amoon senegal mm-hmm. nervi yi fii lañ leen gis ki démb donc la seeni foto nga ci net bi ñu doon gis numéro 9 bi yéen ñëpp gis ngeen ko

non fii laa maa ngi koy wax yéen ak ma koy laaj ma di ko wax. Mhm. su ma ko doon nëbb danaa ko wax ci ci kii. xanaa looy wax ci biti kay war nga ko mën a wax ci kii fa ma ko war a naa ko fa. Mhm. Ah, man lu may nëbb dama koy dem ci ba ba ba ba Touba TV ni fàng ci di lool. ko waxee léegi man dëgg dama ni la. Mhm. ñun doomu daara ñëwuñu ci politique pour ragalante gannaaw. ñëwuñu ci politique bu ngeen gëmoon ni tey doomu daara ñooy ñooy ñooy santinel ñooy ñooy ñooy ñëw taxaw tey pour projet bi du déraper ñi ci nekk du ñu réew te ay nit dong lañu ku ci def lu dul noonu dañuy taxaw ni la li nga def du dëgg danañ la ko waxee fan fan lañ la ko war a waxee mais du tee ñu gëm li ngay def gëm sa sa sa sa sa liggéey gëm mais parce que ñun ñëpp ay nit lañu li fi amoon démb nag mooy ku sa ànd ak buur bi kenn du la wax dëgg kenn du la convoqué kenn du la laal yaay porté plainte yaay dóor yaay def di dindi loolu moo fi amoon démb loolu jeex na fi loolu jeex na fi ñii nga dégg ñu naan dem nañoo seet dañoo am problème ak justice ñoo tooñ wala justice wala nañ leen jàppee du noonu kooku seen problème ak justice mais ñun amuñu benn interférence suñu yoon nekkul ci ah benn waay bu génn fii joteeku gendarme suñu yoon nekku ci moom gendarme yi ñoo xool buñ ko bàyyee ak ñu jàpp ko benn la ci ñoom ñun li ñuy doxal mooy suñu yoon Hmm? judiciaire euh, pouvoir judiciaire bi doxal C'est lolou lañ doon joytu mais am nañu. ñu ñu ko dindil euh num euh Cheikh yirim waaw c'est normal yow la dankaf en tant que sénégalais. na la ni sa cravate mais imam sénégalais

mu firndel ko ci election yi jall gannaaw bi yep woné na ni ku bëreeg mom politiquement mu daan ñu ragal ko politiquement jëm ko liquider politiquement mais tay dama lay laaj sa digganteeg yàlla sénégalais yépp ñi déglu kan ban adversaire politique moo del sonko tay ji non bu ba bugaan dégg naa ko dem ci point de presse mu ne am nañ deux deux kilifa yu ko fekk ci tamba waaw nee na ci sonko wax deux kilifa yu ko fekk tamba

mais ñu ko de dañ ko dul wax ne mais dese nañoo ñemee bugaan moom. bugaan moom ñemewoo leen ko. ñun ñii waaw. yéen a ngi toj ko fii nii. ñaar ñemewoo bugaan. bugaan rek ngeen dagal ba pare nag bugaan ñoom fu ñu génnee bugaan génn. daa mel ni pape bi topp eh, eh, Messi. mais xam nga yow. xam nga waaw ah, ak Bart la mi seen copain Bart. xam nga yaa ngi may reeloo soxna si xam nga. Amadou Ba rek ngeen daa xam nga man man euh, sincèrement yéen a may yéen a may reeloo parce que yéen a que xam ngeen li xew ah. non non non xam nga journaliste bu la posé question pare di ree <laughs> léegi li nga koy laaj mooy yow looy ree waaw parce que yéen ñi leen buggaan gay waaw d'accord xam nga xam nga euh, soxna si politique lu bax la motax ñun avant politique di man sa morom duma la mais politique ñun suñ dégg-dégg ñaar la man may doxal ni lay doxalee fi lay jaar li moy samay objectif li plan fi à koy ak ni ak moy yi ak nangam-nangam lolu nañ ko critiquer d'accord man nañ d'accord man damaa bëgg a doxal doxaluma waaye damaa bëgg a doxal lii moo ma naqare ci li fi nekk nii laa koy corriger nii laa koy redresser su ma ñëwee lii laay def pour jële fi lii indi fi lii ñaari thèmes yooyu rek la politique ab le pouvoir li mu war a def mooy proposer lan la war a def te nekk ci li mu war a def nekk ci li mu proposer mu nekk ci. Bougane li mu proposer. may ma Bougane lan la proposer. sa ak yalla Bougane qu'est-ce qu'il a proposé au Sénégalais waxuma lu mu wax ci Sonko de waxuma la lu mu wax ci nenu baxal de waxuma la lu mu wax ci saagu waxu lu mu wax ci saagu saagu première dame wax lool du proposition dama ni la lool non lool du proposition dama ni la wax ma lan la proposer ni mom la bëgg def Sénégal day bañ ngeen jël ay idem Bougane Bougane il est intelligent day bañ ngeen jël ay idem non non man je n'ai rien xolal Bougane je n'ai rien contre Bougane ay ngeen ñu amna na muus naa wax na li lol man duguma ci débat bob mais man ma ngi nek ci terrain politique bi di xaar bépp opposant bo duggee bëgg nga Sénégal nga ëndil Sénégal benn proposition bu Sénégalais yi mën sukkandiku ba ni kat lu amal njariñ réew mi lañu top la ci. man fofu laay wax déggee nga wax dafa melni amul opposant bu sérieux actuellement. amaguñu proposition yu sérieux de. ah man daa far rek. <laughs> jërëjëf. man faruma de dama bok <laughs> da nga bok déedéet faruma de. man dama am droit far de. Ah, yow da nga maa woo fii an man Pastef la wala ñooñu teguñu fi lu leer. Pastef laa fi toogee. Mhm. Modab laa fi toogee. Mhm. dama far ba ca yax ba. am nga ci soo bëggoon loolu da ngay indi keneen ku toog fii ku bokk ci gaañoo ñu xaw seen coalition yi sax nu mu tudd. ah, ah ñoom ñii ci lañ bokk. <laughs> waaw dañoo daw ñoom dañoo daw gisuma leen <laughs> léegi léegi daal man li ma bëggoon sincèrement nag ci politique c'est du sérieux kafi bari na nii mais bu ñu politique ci ñun c'est du sérieux ndax lu ñu yàlla di laaj yowmal xiyaama ndax nit ki booy dund ci àddina lépp loo def fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin est ce que yàlla daf ni zarra boobu boo ko ci côté bii nga koy gis boo ko ci côté bii doo ko gis amul domaine bu nit ki di dugg ak effort te domaine ba dañ ko ci natt donc nun dañoo jàpp ni kuy poli. waaw bàyyi ma àggale boo leen dégloo cinq minutes. waaw dañ lay cinq minutes boo leen dégloo. maanaam yow mi jàkkaarloog ñëw. yow yaa njëkk a lu balaa nit ñi. moo tax bu leen may loolu imaam pour. parce que dañoo ne ci dëgg. xam nga boo nekkee ci dëgg. tilka xujjatuna aataynaaha Ibrahima ala qawmihi. dégg nga dañoo ne ci dëgg xam nga ne ci dëgg. dëgg dafa neex a layal man damay wax ni yàlla xam na ni su ma mënatula woon a layal Pastef sama bokk ci Pastef sama voté liste bi campagne liste bi suma ma ci su ko manatul won ma bàyyi parce que man damay dox ak samay conviction samay conviction mu dugal ci Pastef moma ma cay téye su dérangé woo ma génn kooku dama koy wax ñëpp dégg ko man kenn momuma wutuma don dara ci Sénégal lu li ma def sëriñ dara ma gënal junni yoon ministre donte nak xébuma nek ministre xébuma nek ci wetu président de la république dico dico dico conseiller maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm mu nekk lu honneur bu mag bu ñu defar daara waaye dama ni la nekk sëriñ daara benn yoon moo ma gënal junni yoon nekk président sax laa waxuma laaj ministre kon man bu may wax damay wax ci cadre ñun waa modab ay doomu daara yan conviction moo ñu indi ci politique conviction yi mooy dañoo jàpp ni ki indi proposition nga jàngat ko jàpp ni dëgg la ngay taxaw di jàppaleeg moom ci loolu nga jàpp ni dëgg la lolu conviction bu noble la bu l'islam and la man nga juum nag nit nga waye nga japp ni moy deug ki indi lo? ki wul proposition xasoo ko xuloo wok mom. man buma bu ngeen ma na ay bugaani man ñooñu du len leen man nekuma ci politique diw diw diw man dama nek ci politique ñun suñu référentiel li la wax fi lañu bëgg mi li lañu bëgg def ku ku indi leneen lu dul loolu ko ko la nga ca am man muy dëgg dama wala cay fekk si mais la nga xam ne man dama ko indi muy dëgg fii ak gisuma ko ko dindi dama koy défendre c'est ça ma position soxna si